doon saytu xalalu réew mi ñañ ko dénkoon fa wax na rapport yi nga xam ne moom ngeen xamaloon ci juróomi at yi weesu faa bëgg ngeen génne ko ñañ ca war a topp ñu topp leen ci yoon ba tax libération ne hée tappalekat yi ñu sàcc alalu réew mi tii su ma leen mbaaw de fa ñoo xam problème dëgg source a yéen a kaay na njiit réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye ngir mu mën a lañ xool ñu sàcc alalu réew mi ñi ko sàccu ci ñu fi nekkoon ministre ci jamono njiit a a Walfadjri yéen a kaay ne yéen a ngi fàttaliku njiitiram Macky Sall fa waxoon ne am na yenn dossiers yi bu yegsee ci moom fa ci teg concam yëfi di mujj fenn daal léegi nag conc njiitiram Macky Sall boobu moom la jamaay fa yëkkati ci dossiers yi maanaam amul kenn ku ñuy aar ak ku ñuy làq képp ko tappale daal bañ épinglé ci rapport yow moom tey nga dee vox populi ne caaxaan faaxee jomaay ma ngay niit ak ak a seet fi mu toll yi tàmbali na ci fànn yu bari yaw seetal waa IGE ñoom la président jamaay fay sant ñu contrôler doxalinu palais audit yaag leeral yaag saytu maag càmbar maag fi mu toll ni daal machine ba fa tàkk gaa ya tàmbali nañ réew mi yéen a kaay ne Bassirou Diomaye Faye seen projet bi mooy li ñu digoon sénégalais yi moom lañ tàmbali fi mu toll nii Le Soleil yéen a kaay ne faa leen di wax dogal yu mag yi nga xam ne njiit réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye fa ko jël démb ca conseil des ministres ba ah, yaaw seetal bi ci njëkk fa wax ne rapportu OFNAC yi IGE Cour de comptes ci juróomi at yi weesu nañ ko génne ci ni gën a gaawee xool ñoo sàcc ak ñu tappale alalu askan Mansour Faye goro Macky Sall faa ko jàqal ndax moom rapport ci xaalisu corona bi milliards yu bëri yooyu fañ ko cee kepp épinglé nañ ko ci naka noonu Aliou Ndoye ak ay dages yu bëri ak ay ministres yu bëri yoo xam ne fa ñoo sàcc foofu alalu waaye tamit rapportu IGE 2020 yi Mary Teuw Niane mii ak Mimi Touré ñoom it fañ leen cee kepp épinglé nañ leen ci de Le Soleil yéen a kaay na ko may ma faay continuer yeneen dogal yi président Diomaye jël démb fa caa bokk faxe ba ñi jàng arab seen diplôme yi ñu nangu ko dugal ko ci biir comme diplôme ñu jàng français ba pare fay taxawal banqaas boo xam ne fay saytu mbiru diine ji wëyal defar ak yeesal këru kilifa diine yi bokkaat na ca dogal ya taxawal banqaas boo xam ne fay saytu wàllu ndox mi ak juróomi conseil interministère yoo xam ne fañ koy amal jagleel ko mbiru tabaski beeg nawet bi waaj a ñëw campagne gerte gi wàllu examen yi ak concours yi ba ci ajug màkka gi te moo yéen a kaay ne gaa yi ni ñu yoree woon réew mi moom lay jomaay di lijjanti te bàyyiwu dara de bokk na ca dogal yam jël fa santaane ñu amal audit càmbar contrat SONES ak CNO ak état bu Sénégal moo ñu yor wàllu séddalam ndox mi rek wala fa jër yéen a kaay na ko tey ci dogal yam mu toll nii RTS ka koy jiite mooy tëb rek nommé ko de ku ko neex déedéet fa ñuy def appel candidature naka noonu ARTP ak DER foofu yëpp ku koy jiite ku ko gën a yelloo ëpp ca xam-xam moom lañ koy jox waaye du fal yaa ma neex de indépendant yéen a kaay moo ñu ko xamal l'observateur ne faa nar a gis nguur goo xam ne gars yi fa ñuy dénoncé rek ñaawlu rek vox populi na ko jomaay li def ni noonu la war a def boo jiitee réew bala ngaa tàmbale liggéey kay li nga fi fekk fa nga koy càmbar ba xam ku sàcc ak ku sàccut lu baax ak lu bon te na ko faala ci yokkal le 28 mai bi di ñëw fa jël dogal ci la ñuy amal dialogue national waxtaanee sénégalais yi amaat kóolute ci ñoom université yi tamit fa santaane ñu dem gëstu la fa am la fa dox lay problème yeeg yëpp mu leer ba ci sax chantier yi nga xam ne mooy chantier naval ak port bu ndaayaan bi nga xam ne depuis moo ko yoroon fa wax ne lépp nañ ko audité mu leer ci gàttal mboolem contrat ba ci secteur maritime bi maanaam contrat de pêche yi napp gi chinois yeeg tubaab yi Europe suñ jën yu baax yëpp fañ koy napp di ko yóbbu loolu fañ koy xoolaat a kaay ne Basiru tàmbali na projet Diomaye Faye tëj ko kaso tey ji 18 fekk mu nekk président bu Sénégal nga xam ne yàlla du nit vox populi moom fa ñoo xamal ne njiitëram Macky Sall laata nguuram gi jeex mars bii fa signé ab décret buy delloo si parti bi ñuy wax Pastef bu Ousmane Sonko yéene kaay bi ne kon jamono jii kenn dootul waxati ex Pastef déedéet Pastef ñëwaat na te jotaat na récépissém ki ñu waxoon na nag fa jotaat postam muy capitaine Touré ca gendarmerie na fañ

réewum Gàmbi lépp ngir giseek suñ dëkkandoor yi waxtaan ci jëflante jàmm wàllu pétrole beeg yeneen yoo xam ne fañ ko war a waxtaane libération na ko ñi nga xam ne nag képp ku def naka su noona fañ lay weer mooy ñi ñuy wax lanceur d'alerte njiiti réew mi Jomaay Fay fa sant ministre bi ñu dénk wàllu yoon justice na ko balaa la 15 bii faa bëgg nga defar projet de loi jëm ci aar lanceur alerte yooyu noonu Dakar waas yéene kaay Jomaay lam digoon askan ku ñu rey Sénégal te du mujj fenn nag ayow fa ngay xool quartier ba ñuy wax yëmbal benn waay boo xam ne fa doon daan dooleem yore poulailler di yar ay ganaar fañ kaa fekk ca poulailler ba rey ko ba mu dee ci anam gu ñaaw tàggat yaram Bayern Munich mbuqi na Arsenal dem na demi-finale waaye équipe bu mag a mag bi Real Madrid neexut ba neexut waaye ay ndaanaan lañ neexut ba neexut waaye Real moo fi mën neexut ba neexut waa Barcelone yi ak seeni supporters xam ngeen ne du seen morom démb fa ngeen a socc woon pare a foogoon ne City fa koy mbuqi waaye démb fa a dugal 1-0 dem ba jongante bi di waaj a jeex ci la City door di égaliser ba pare nag dominer Real bloc bas défense contre attaque noonu lañ ko jàppee bañ dem série penalty Real ne leen tey ngeen de <laughs> Real kenn farate Modric ñi des ñëpp fa ñoo lakk caax ya 4 leen mbuqi kon City fori na neew Real dem na demi-finale Bayern na lay xam de hmm, waa mané bu yàlla dogalee ku bëgg a noppalu fa nga koy nangu Barça ak i supporter nangu leen Real ngir yàlla duñ seen sama anniversaire équipe bu mag a mag bi Real fañ maa jox cadeau bu neex te mooy mbuqil ma waa City